mooy li ma leen wax rek dafay situation boo xamante ne nii maanaam man sumi pour régler ko dafay compliqué li waral ma ne pour régler ko dafay compliqué parce que Bouba nduur boo ko déggee mu wax da nga koy gëm boo déggee Bril wax da nga koy gëm mais nag man chimie li mu mën a wax rek mooy Bouba Ndour magum jëmm la waaw salaamaaleykum mbokk si égal salaamaaleykum adduna ma ngi leen di nuyu yéen ñëpp bu ngeen mënti nekk ku ci nekk si tur ak sant di leen wax ni comme back sur ma chaîne Choumi TV yéen a gën a xam mun naa ni ko rek ni faral defee à chaque nag dafa ñëw tey sama gars yi pour waxtaan yéen ci benn situation boo xamante ne nii mun naa ni ñun au Sénégal peut-être xëy na bii moo gën a fës mais yàgg na am bi senegal pour ñi nga xamante ni comprendre li ma bëgg wax mooy Bouba Ndour ñëpp xamee ko ni mooy suma juumul directeur des programmes TFM ñu gis ko ni dafa demoon ci yoon maanaam ñu ko yóbboon ci yoon ndax moom ak artiste boobu ñuy wax ndax ñoom ñaar dañoo amoon problème ci affaire droit d'auteur ñu gis ni ba ñu demee tribunal ñoom ñaar Bril dafa mujjee am dëgg ci kawam maanaam Bril moo mujjee gagné casier judiciaire bi mais sànq dama am benn déclaration boo xamante ni dama dégg Bouba Ndour def ko ba Bouba Ndour génne aussi déclaration am yàggul noonu ma dégg aussi Bril génn sur Instagram wax ma ñëw nag tey sama gars yi pour indi leen ñaari version yëpp bu ko defee ñi nga xamante ni comprendre ñu dinañ ci mën a jëlee une idée comme ça ñu boolendoog ñu waxtaanee ko chaîne bi léegi li may njëkk def mooy dama leen may ngeen déglu Bouba Ndour ba pare bu leen ko avancé nag vidéo bi 4 minutes lay duré wala 3 ay quelques minutes ñëwaat ci chaîne bi sama gars yi ñu ci waxtaan. jërëjëf Mame Fama euh, maa ngi lay remercier ci question bi euh, euh, di wax que ni vraiment situation bu xawoon compli xaw a compliqué la avec l'histoire avec artiste boobu tudd Bril boo xam ne man daanaka miinu ma ko woon sax bien que daan naa dégg musique am donc vraiment mu nekk lu metti parce que.

bi ñu ma ko waxee euh, ma ñëw ci nit bi nga xam ne mooy toppatoo loolu mu tudd Pathé Dia ne ko de am na benn artiste bu way benn way dégg naa def bu tudd Taï Fine comme suñu titre sketch de cinq minutes cinq sketch bi cinq minutes rek lay dure Pathé ne ma ah ok mu mu trouvé numéro am ci sama kanam Pathé woo ko Pathé Dia woo ko ne ko vraiment dañ buggoon utiliser quelque secondes ci sa way boobu parce que dafa dafa ànd ak benn sketch bu ñuy def ci weeru ko bi bu tudd euh, Taï Fine mu ne ko paate ki sama kanam ne ko amul grand loolu amul ben problème fofu sama kër la dama fay ñëw di def ay émission et tout ça su ma amee lu bees lu ma génn da nga fay ñëw ngeen japp ci ne ko grand loolu y' a pas de souci mun ngeen ko utiliser ci sama kanam deug yalla euh mu nekk cadeau euh, yu am lu ma rafetlu won ci instant boobu man a ñu remercier ko euh, raccroché téléphone bi def def série bi série bi limu limu def ci chiffre d'affaires ci koor bi 6 millions 500 la kessé euh, ñu def ci vingt neuf épisode xaw ma quelques mois après ba le passé ma xëy ben bis gis que ni yónnee na ma ben sommation di ma réclamer ne ma man ma, ñun ñoo jël euh, euh, wayam te laajuñu ko autorisation li nga je suis désolé du du dëgg te nit n'ak moom je pense que ce cadre, buñ la laajee dara nga joxe sa cadre, ne am rafetlu ko nga dem ba ci biir pour quelque raison que ce soit nga tiiñal nit ñi di jéem a yàq seen der di leen jéem a soutirer de l'argent loolu pour man àddina xaalis jarul loolu te vraiment man yàgg naa euh, jàppale ay ay artistes yàgg naa dégg loo xam ne responsabilité catalogue bi fi nekk ci musique yépp ci wàllu lépp lu ñu def ci sama loxo bi la nekk te amaana ku ko soxla utiliser ko te bii sax dafa fekk ma laaj ko ba ñu jox ñu autorisation donc nga dem ba si biir euh, changer doxalin pour indil nit bi ay coow. jël jël ci moom peut-être xaalis yàq peut-être jéem a yàq deram wala crédibilité je trouve que c'est dommage donc bu ma tribunal euh, bi euh, yaak amoon naa yaakaar trop que ni euh, décision bi du bii mooy parce que lañ fa wax leer na mu nekk décision bu ma donc évidemment bi ma ko yëgee dama def appel ak suñu avocat pour vraiment bu ñu demee cour d'appel aussi ñoom ñu mën a dégg bu baax ñun suñu ay argument pour mën reconsidérer décision bi nga xam personnellement daf ma naqari parce que du loolu laa si jublu woon te suñu borom rek laa koy laa koy euh, seddeel donc euh, vraiment mu nekk situation bu compliquée mais yàlla baax na donc maa ngi leen di gërëm di leen sant merci. yéen a ko déggandoo muy benn situation boo xamante ne sama gars situation bu ñu bàyyi xel la li gën a war a mën situation bu ñu war a bàyyi xel la parce que li ñëpp dégg ngeen Bouba Ndour ne dafa amoon benn concept benn série boo xamante ni daf ko bëggoon a commencé. mais série bi mi ngi ko tiitre woon taayfin te nee na terme boobu mu ko tiitre woon bril dafa amoon benn son bu mu génne aussi tuddee ko taayfin nee na moom Bouba Ndour moom ak waa TFM ba ñu waree liggéey ci production boobu noonu ñu gis ni kat ni que ñoom nu ñu tiitre série bi dafa connecté wu ak on bril bi nee na moom ci boppam ak xawma kan bi TFM ñu demandé bril laaj ko ne ko ndax mën nañu utiliser sec benn séquence son boobu noonu. nee na biir jox leen autorisation ne leen d'accord naa ci loolu am benn problème mais ngeen dégg ko mu ne ba série bi dawalee ay quelques épisodes lañ dawal rek mu dégg na que Bril daf leen a yónnee sommation maanaam pour ñu fay ko xaalisam parce que nee na dañoo utiliser produit am sans pour autant ñu am ci autorisation ba yéen ñëpp gis ngeen coole fi mu mujjee ñu mujjee ko yóbbu ci yoon mais pour ñu xamul rek ne Bril mujj naa am dëgg ci kaw bu Ndour yoon jox na ko dëgg il paraît TFM dafa am benn indemnité boo xam te ne dañ ko war a fay. li ma gis nag situation bi nii mooy li ma gis sama gars yi yàgg na au Sénégal du bii mooy la première fois yàgg nañu gis ay artistes yoo xamante ne au Sénégal dañuy joindre une maison de production mais bu ñu joindre une maison de production sax ñoom seen titre yi nga xamante ne ñoom ñoo ko moom ñoom booy xool duñ ci gis seen bopp. ñëw ma nag tey sama gars yi pour blâmer Bouba Ndour de parce que man su mi personnellement je ne sais pas xaw ma nan la situation bi demee. te aussi vidéo bi jeexagul dinaa leen indil aussi version bril ngeen déglu ko. mais li ma bëggoon wax rek ci situation bi nii. mooy il faut que aussi ñoom benn affaire bu ñu comprendre. mooy ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo am maison de production yi. man ñu ci bëri si ñoom dama gis ni. des fois seen intérêt rek la ñuy seet duñu xool aussi intérêt artiste bi tey jii y' a beaucoup de maisons de production yoo xam te au ñu ngi Sénégal mais dañuy enrichissé wu ci kaw artistes yi au Sénégal du ma ne rek les artistes musiciens mais même les artistes comédiens dañ koy dund. tey jii dégg ngeen fi fois ay artistes comédiens yoo xamante ne y' a beaucoup de maisons de production yoo xamante ni dañ leen use te duñ leen fay seen xaalis mais nag wax ji bu ngeen ko dégloo bu baax di ngeen xam ni Bouba du xale Bouba Ndour magum jëmm la. te man Choumi ak ni ma ko xamee gaaw ma ni Bouba Ndour mii dina jël produit jàmbur ak ni mu yàggee liggéey audiovisuel gaaw ma ni que dina jël produit Bril Otago kon man dama gën ni bu Bouba Ndour xasee ba génn ne jotoon nañ ci waxtaan ak moom ba Bril jox leen autorisation kon man Choumi mënuma comprendre le pourquoi Bril di leen yóbbu ci yoon man Choumi mënuma ko comprendre quoi dëgg la nag au Sénégal ñëpp am des problèmes maanaam tey jii ni ma koy waxee rek ne métit métit bi àdduna bi di dund crise bi ñëpp di dund ñëpp koy dundandoo peut-être xëy na Bril daf ko autoriser waa TFM ñu use ko mais bañ demee ba si biir mu xam ne épisode bi mi ngi commencé marché mi ngi am ay vues mu gis ci boppam ne kon xaaral prévito am lu ma lekk ci TFM mën na am peut-être que ni aussi Bouba Ndour moo nekkul ci yoon parce que man su mi dama gëm ni monde bi léegi dañu toll benn century boo xamante ni léegi lépp dafa avancé tey jii bu fekkente ni kilifa nga nga yor une entreprise mu leer na ni yow à tout moment benn cible rek la nit ñi am ci yow mooy nan lañu mën a def ba porter la ba am lu ñu lekk ci yow. bu ngeen demee ci même les pays développés ñi nga xamante ne dañoo yor des entreprises boo leen laajee lan la ñu gën a ragal dañ naan ku ma bu ngeen déggee le moo suu mooy maanaam porter plainte loolu la ñu gën a ragal entreprise yu gën a mag. kon man gisuma yu noom seen raison bu Bouba Ndour am lu toll ni TFM mu bàyyi Bril di leen porter plainte sans pour autant ñu am autorisation mais li ma bëgg wax foofu rek mooy meekul sens bu fekkente ni yàlla dëgg rek la bëgg quoi lii lépp dara meeku ci sens bu fekkente ne danga jug ne da ngay liggéey ak nit ki man dama gëm ni da ngeen war a toog yéen ñaar ngeen trouver un terrain d'entente ngeen signé ay signature yu leer yuy wane ni diw moom autorisé nangam deuxième bi aussi ñun ñëpp gis nañ ni yàlla téléphone portable tey ji téléphone portable yi you know what I'm bu fekkente ne yéen ñaar ba ngeen koy jokkoo par téléphone ngeen ko jokkoo même bu ngeen demee jusqu'à Sonatel mën nañu génn relevé beeg lépp génn leen audio yeeg lépp leeral ko kon man personnellement dama gëm ni bu fekkonte ne Bouba Ndour tàggu na Bril pour utiliser produit am kon lii lépp du am il faut que yenn maison de production yi mag yi ñu yërëm yenn artistes yi parce que man su dama gis ni que waa Prince Art dañuy liggéey te bu ñuy liggéey seen xaalis la ñuy wut gis ngeen fi tout récemment yàggul Pendo mu génn di kaas ne moom dafa signé woon ak waa Prince Art ñu tourner ko ay clip mais bañ ko tourner tourneloo ay clip nee na moom Pendo am na ay clipam yoo xamante ne nii mi ngi ci biir YouTube bi mi ngi am des millions de vues mais nee na mos ci lekk sax benn 2000 francs léegi bu ñu ci loolu sama gars yi

ngay woo ko téléphone ne ko sa woy bii de dama koy jël dama ko bëgg a jël pour liggéey si def ko euh, générique gu benn film début ak fin ba noppi di ko dawal ci ay publicité si yenn publicité bi bu koy def moom laay jël def ko ci suuf xanaa dof sax boo waxee lool dina la kaay toog ñu waxtaan bindu contrat saxantuma nit ko ànd ak xelam tey bu fekkoon ne toogoon nañ man ak Bouba Ndour ak ñoo ñor ñoo def bi ñëw def contrat waxtaan mën na leen euh, mun nga am ngeen autorisation jël jël li nga xam ne maa ko moom def ko générique début ak fin utiliser pour seen publicité kon wax ji du mës a egg fii parce que du ma nit boo xam ne damay jox nit aval ci dara pare ñu si delluwaat ba pare euh, jamono toll na foo xamante ne lépp looy wax ak nit ci wàllu liggéey da ngeen koy bind day doon rapport bu ñuy bind ma bind man Bril man maa autorisé diw mu utiliser sama son pour liggéey ci def ci lii ak lii ak lii même bu doonul par écrit sax mu don par mel yalla mu motim musuma jox autorisation bu Ndour wala ki que ce soit ne ko mën ngeen jël sama way wala sama œuvre utiliser ko def ko générique début ak fin utiliser ko pour sam seen yenn publicité billahi wallahi wa taala ci wéru sel wi ñu nekk mi wéru koor ak lima ma wor ak lima wor woor juddo ba tay bu fekkee lool amna yalla bu yalla nangu sama koor lool musul am bi nga xamante man ak ñi may liggéey ñu def nañ constat ci loolu gis ne du yoon te réew mi am na yoon ñu yónnee leen sommation bi nga xamante ne yónnee nañ leen sommation pour man Bouba Ndour moo na am tuuti grandeur woo ma ma ànd ak samay staff ak sa manager ñu dem toog sur table waxtaan li jënti mbir mi suñu biir mais il ne l'a pas fait ñoom ñëpp sax laax ils ne l'ont pas fait ils ont essayé d'ignorer d'ignorer affaire bi parce que peut-être euh, brûle ne signifie rien du tout quoi yoon nag def liggéeyam àtte li nga xam ne mooy dëgg. <laughs> mooy li ma leen doon wax rek dafay situation boo xamante ne nii maanaam man su pour régler ko dafay compliqué li waral ma ne pour régler ko dafay compliqué parce que Bouba Ndour boo ko déggee mu wax da koy gëm boo déggee Bril wax da koy gëm mais nag man sumi li mu mën a wax rek mooy Bouba Ndour magum jëmm la et aussi c'est un chef d'entreprise man gëw ma ko Bouba Ndour dina génn di jël produit jàmbur sans pour autant mu def ci lu leer. Bril aussi ni ma ko déggee mu wax you know ci benn côté xaw dama convaincre quoi parce que yéen a ko dégg sax mu naan bu leen neexee mën nañ dugal recours. <laughs> waaw kon ça veut ni kooku ci fu la toog ndax yéen a ngi dégg sax Bouba nduur naan bénéfice bi ci biir film bi sax bëriwul parce que nee na 6 rek la ci TFM am. ma bëgg wax nag ne leen monde bu ñuy dund doomu aadama yi dañu lëndëm képp koo xamante ne na nga entreprise boo bañee sa entreprise am problème lépp looy lijjanti bul ko teg rek communication indi ko ci ay documents ngeen signé ko ci lu leer et légaliser ko ngir bu subaa bul nit bëggee yóbbu ci yoon li mu bëgg ko am. lii daal tey la Choumi TV indi woon sama gars yi di leen wax ne nag yéen ñiy seddaan bind leen ma ci suuf ngeen wala ngeen xalaat ci problème bii nii. ndax xalaat ngeen ni Bouba Ndour moo nekkul ci dëgg wala Bril moo nekkul ci dëgg suñu TV mi ngi leen di bëggee ñëpp di leen ñaanal jàmm ak salaam di continuer yi di leen rappeler ne képp koo xamante ni ci yéen ba nga suivre sama actualité mën ngeen ma fekk sama gars yi ci yeneen plateforme yi. yónnee leen ay message ci Instagram bu fekkente ne am ngeen lu ngeen bëgg communiquer Choumi TV bind leen ma ko ci commentaire yi mën ngeen ma ko si yónnee ci email boobu noonu ngeen ngi ci suuf di chumi tv at gmail.com di len bëggee di len ñaan jàmm ak salam di len jox rendez vous ci yeneen vidéo di len wax ni peace and love thanks for watching الله أكبر